ñaari soxla amuñu ñett soxla benn soxla lañu am daara ji dox daara ji dox mooy sun soxla amul benn soxla sunu lépp nag ma ngi ayu ci daara ji dox nun ak yéen ak sunu mbir mépp mépp mépp daal ma ngi ayu ci daara ji dox bu daara ji doxee daal lépp dox jàpp ci daara yi nañ jàpp ci daara yi nag doomi daara yi jaar ci daara yi doomi daara yi teraangi leen yàlla jox xëjul ci daara yi ndaw ñi daal ci loolu laa leen di woo sama moroom yi ñi nga xamante ni maak ñoom ñoo maase jamono liggéey bi dafa laaj ay loxo liggéey bi dafa laaj taxawaay liggéey bi dafa laaj yitte liggéey bi dafa laaj ak cawarte te loolu ci ndaw la nekk. Daarakoki TV la chaîne au service du Saint Coran télé bi liggéeyal alquran al karim. wallaahi sëriñ Amat Saxiir bu dellu siwaatoon jamono du ne mukk maxtaar nii nga toogee du ni du ko wax ndax lu mu fi bàyyi woon muy benn rek ful nga ko ba muy fukk lu mu fi bàyyi woon muy fukk def nga ko téeméer lu mu fi bàyyi woon muy téeméer def nga ko junni bu fi bàyyi woon junni nag ful nga ko nag bam yéem ab gis-gis akub dégg-dégg loola nag la la ko may mooy baax gu yàlla def ci yow waaye boole la ak ñu baax comme ni ma ko waxee ci njalbeen équipe bi nga xamante ne bii mooy sa njabootu bopp ak ñi nga xamante ne bii ñoom ñëpp nga joboote ñii ci deret ñii ci soow ñii alxuraan boole leen ñu jàpp ci ba mbir mi taxaw ba mel nii yal na yàlla yàggal leen fi bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xaw ma nag ñenn xawma ma ñenn waaye nun ñii sosoo ci ay woyjur te ki nga xamante ne kii mooy saa Fatma Kanji ak njabootam ëpp ci saa Fatma taxami ma juray magam mboolem sunu askan wi de nun mënun leen a fay mënun leen a fay ndax kat damay dégg ci boroom xam-xam yi ñi jàng ne wenn arafu alxuraan day képp ku ko def ci yow wala mu def ci yow saaru alxuraan ba nga mokkal ko kooku amoo payam ndax wenn arafu alxuraan li yàlla bind ci ay doom aadama mën nañ koy séddoo ba ñoom ñëpp ñu jeex te araf yi du jeex tuyaaba ji du jeex kon yéen ñi nga xamante ni bii sunu ëtt bee defar ngeen fa fukki kaang ak juróom-benn xaw ma fukk ak juróom-ñett fukki kaang. kon nun day mënuñ leen a fay yàlla na leen yàlla fayal bi hormati rasulillahi sallallahu alayhi wa di ñaanal gone yii nga xamante ni bii jógee nañ fu ne ci sous région beeg biir Sénégal un peu partout barke bi ñu fi sàkku si muy barkeb alquran yàlla na ko yàlla def ci ñoom bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ah xam naa daal du nu dugg ci domaine yàlla waaye li ma mën a wat daal mu wér ma te wóor ma mooy que ne sëriñ Amadou Saxiir liggéeyal na yàlla bàyyi fiit nag njaboot guy continue liggéey boobu di liggéeyal yàlla yàlla na yàgg yàlla na yàgg ah jàngkat yi nag daanañ wax naan ci fàllu loo sax laa ko déggee woon di taqdimu ziar xabla ziar loolu de ci fàllu laa ko déggee woon lii day kër sa Fatma Kanji ñoo boole xeeb ko lool wax dëgg yàlla am bu àddina bépp gëmoon ñu yëngal li fi ne joxe ko fi li fi ne jar na ko ki fi ne jar na ko bëgg nag moo santul am te bu xool fabe man mën na tegal fi suuf waaye lii daal kër sa Fatma Kanji ñoo ko siyaaree jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf xanaa kàddu cant la rek ak ak ngërëm ndax li nga xam ne moom ngeen def noonu teguñ leen ko ndax li ngeen féetewoo du ko def ci njaboot gi bis bu nekk moo ëpp fuuf fuuf te loolu ma ngi tàmbalee ba daara gi sosoo ba tey te xàddu wu ngeen ci tay wu ngeen ci te ji ngeen koy defal xamu ngeen seen ndey xamu ngeen seen baay. da ngeen koy def rek te yàlla tax jëf jooju dong nun doy nañu sëkk te mooy jëf ji dëkk te moom lañ ëpp yaakaar it ak nangoom te su ko yàlla nangoo lépp lu askanu ci leen xam sax leen leen ku leen xam sax dana ci xaj te yàlla na ko yàlla nangoo leneen li ci des tamit ñun day dañ leen di sant di leen gërëm ndax melokaan wi yoo xam ne moom lañ gis moom lañuy dunde bokk di ko dund ak yéen te mooy melokaan as melokaan melokaanu jullit dëgg nangoo liggéey nangoo ñaq nangoo jaamu yàlla téye sa tànk téye sa lépp te yaakaar naa kër gi samay at néew na lool waaye yaakaar naa loolu moo ko sosoon ba léegi nag dañu ci tey tamit ca ñaq mag ñoo ya nga xam ne nii daan ñaq di dund rek moo doon seen liggéey ba njaboot gi am loolu moo waral yaakaar naa ne waa Kànjeen li ñu am bëriwul ko am ci kokki gisuma ko sax amu ñoo xam ne nii luñ bëgg a def ci alquran luñ ci bëgg wàcce ci ay kaamil soo téeméeri kaamil seeni njaboot noonu nañ ko wàccee góor ak jigéen te kenn du leen wax loolu bëriwul am amu fi kokki moom amu fi kon nag loola te loola la lay sabab ba ak mbaax la goo xam ne ji doona deret la joo xam ne ji doy rogaat si tit la loolu moo rogaat ba agsi ci ñoom kon nag yal na yàlla barkeel yal na yàlla barkeel yàlla mën a sàmm yal na sàmm yal leen yàlla aar liggéey yal yàlla gën koo barkeel njaboot gi yal nañ gën a barkeel yal nañ nekk ay mag te mag ñu am teranga ñu saxoo ak diina taqoo ak diina jamono ju nekk nag te taalibu alquran nag ak leeru alquran ak ka baatu alxuraan na muy jollee ci kër gi yàlla bu mu dañ di ko jollee ba kër yomal xiyam te lool it mooy liy am jërëjëf coono yi bari metti na li ngeen def ci xale yi doy nañu sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk li ngeen def ci ay xale ñu leen xamu ngeen seen ne xamu ngeen seen bàyyi ngeen leen di jox ay di jox reer di jox ndékki kenn xamu lim bi nan la toll ñii jàng ba jàng ba mokkal ba ñibbi ba nekkaat seen yeneen te xamee xamee wu laa nuriidu minkum jazaa'an wala xool xamu nga xamee wu ngeen ci kenn kenn ñëpp ak ña jiitu la mi ak ña ko jiitu ak ña leen jiitu xamul seen bàyyi ah, nag jërëjëf ah. na ma ci yéen ah. maanu eh, waxu leen defu leen te lépp loo xam ne li lislaam santaane na ko da ngeen ca mën lépp yéen koy defal yéen a dimbale ci mbokk bi gën a mbokk mooy bu jaamu yàlla gi gën a rëy mooy dimbalaan julleeg woor ak baax na de waaye dimbalante di mbokk dimbale mbokk mu mu ko yeyoo yéen koy def ah man de loolu kum doyul xaw ma leen loolu doon amul ñaari soxla amul ñett soxla benn soxla yu am daara ji dox daara ji dox mooy suñ soxla amul beneen soxla sunu lépp nag ma ngi ayu ci daara ji dox nun ak yépp ak sunu mbir mépp mépp mépp daal ma ayu ci daara ji dox bu daara ji doxee daal lépp dox nañ jàpp ci daara yi jàpp ci daara yi rawaat nag doomi daara yi jaar ci daara yi doomi daara yi teraang yi leen yàlla jox xëjul ci daara yi ndaw ñi daal ci loolu laa leen di woo sama moroom yi ñi nga xamante ni maa ngi ñoom ñoo maase jamono liggéey bi dafa laaj ay loxo liggéey bi dafa laaj taxawaay liggéey bi dafa laaj yitte liggéey bi dafa laaj ak cawarte te loolu ci ndaw la nekk. Daara Koki TV la chaîne au service du Saint Coran télé bi liggéeyal al Qur'an al Karim